bonjour chers amis téléspectateurs asalaamaaleykum mbokk yi amat contentement bu baax taxawaat di leen présenter seen émission ay sont toutes belles donc actuellement nag maa ngi géejawaay ñëw jël si ki nga xamante ni moom mooy sama belle du jour xaar ma woo ko moo ko agsi naa ci parce que foo xoon bu ma ñëwee ba ci côté bijouterie bi rek ma woo ko voilà mu alo sonné allo allo oui bonjour Zeyna na nga def. oui ci jàmm. maa ngi ci donc voilà maa ngi nii actuellement ci côté bijouterie bi accident. d'accord maa ngi ngi may gis waa d'accord ñëwal. ok donc voilà suñu belle du jour nee na mi ngi may seen ñu taxaw tuuti peut dans deux minutes xëy na léegi mu ex en attendant on va refaire encore les 100 pas comme d'habitude Cheikh Laye tey ay élèves rek laay gis élèves yi sax laa waroon jël ñu doon samay belle du jour <laughs> ban élève laa war a jël sax en attendant yaa ngi nii kaay ñëw doon sama belle du jour <laughs> naka école bi kaay wax ma kaay ñëwal kaay wax ma naka école bi ñëwal ñëwal. na nga def ban classe ngay def. si man quatrième. quatrième nga ni ma cours yi dafa metti lu tax mu metti dafa metti yan yan matière moo gën a metti ci yow ñëw leen kaay leen. mat ak PET ñu leen wax ma naka école bi. mat ak PC moo gën a métti non mat yomb na PC. PC yow ban matière la gën a euh, kii mat. Ah. Hmm. yow man tamit mat. kon ça veut dire que yéen matière scientifique yee métti daal mais yàlla wax na Cheikh maa ngi seen benn euh, xale buy ñëw dafa mel ni sama belle du jour la ay bonjour bonjour Eva comment na nga def. maa ngi si bu baax. ba yaa ngi ci jàmm maa ngi si jàmm yaa ngi si jàmm. maa ngi ci jàmm alhamdulilah. alhamdulilah Zeyna alors yow belle du jour mën nga expliquer tout mbokki téléspectateurs yi nga wax leen nan nga def ba participer. salaamaaleykum maa ngi leen di ziar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw dama yónnee samay deux photos ak sama numéro téléphone ñu woo ma. alors Zeyna ñu woo nee la yow yaay la prochaine belle du jour ban effet la la def. non contente rek <laughs> vraiment waaw. d' accord donc léegi sans plus tarder dañuy ànd man ak yow ñu dem si Plaza ñu dem xooli bijouterie Serigne Babacar Sy ak Binta Ebino Couture c' est bon allons-y. voilà chers amis téléspectateurs agsi nañu fi nga xamante ni mooy aussi Plaza ci bijouterie Serigne Babacar Sy comme à l'accoutumée nañ koy tàmm di defee ñoo fekk si fii la belle noirceur d'ébène bonjour Mathie. bonjour Eva na nga def. maa ngi fi naa ci gisaat la. <laughs> ndax yow léegi lay neex rek nga raar neex la ñëwaat quoi. non bàyyi li woon yaa ngi bu baax ça va nuyonteel ak mbokki téléspectateurs yi. asalaamaaleykum yi di am mbégte ak contentement di leen dalalaat fii si seen bijouterie Serigne Babacar Sy. alors tey lu ngeen ñuy présenté. te Eva gis naa ni am ngeen ay nouveauté yu rafet. waa gis nga. xam nga ngi gis nga. moo tax indi nañ leen ay 18 ay 21. bii lan la boobu di 21 Bahreïn la. 21 mhm. Bahreïn 3 pièces la am na boucle d'oreille am na sautoir bi am na bague bi. d'accord bi comme ni nga ko gisee nii dañ ko travaillé 18 la. bii dafa am à or blanc ak. or jaune waaw 2 or la. moom tamit sautoir la bu ànd ak boucle d'oreille am. ok c'est très joli. alors bi. bii 21 la comme genre bii ma takk rek mais moom moo gën a ndaw. Mhm. trois pièces la am na bag am na boucle d'oreille ak euh, ras cou bi. ah bii moom j'adore de par sa simplicité. Mhm. en la. waaw bii mooy Kawro Eva. moom mooy. Kawro Kawro Kawro mhm. waaw. moom tamit trois pièces la ras bi ak euh, boucle li ak bag bi. d'accord. baa ngi. waaw gis nga bii moom boo defee balaa njaay rek. Hmm? da nga koy laal <laughs> yaa ngi ci biir. day fay moom la bu ànd ak bokkul ak. Euh, trois pièces bague bi trois pièces la moom aussi. lii deux pièces la. waaw deux pièces la ay lam la ak jaaru noor. waaw lam ak jaaro noor et c'est en or toujours. c'est en or. ok mhm. c'est magnifique. c'est magnifique. alors xeer bii noonu bii mooy cravache d'or. waaw cravache d'or bii couleur 21 la yor mais 18 mhm. la. d'accord. 18 deux pièces la. Mhm. sautoir bi ak boucle d'oreille mais am nañ ay bracelet yoo xam ne dina ànd ak moom. Mhm. comme am nañ aussi ay bagues yoo xam ne dina dem ak moom dem ak moom. Mhm. Euh, lam yi nag moom moo ànd ak ensemble bi. déedéet lam yi 21 la. ay lam kese la. waaw d'accord coloré bi tamit am nañu ko gis yaakaar ne or mais lépp or la dañ ko coloré rek or or lay nekk 21 carats la. te en plus ak tàngaay bi xam nga couleur yi dañ koy soxla. waaw tàngaay bi day fay. bii nag. bii tamit moom bii ñoo nuroo mais bii moo gën a mag ndax bi dañ ko travail dugal si ay mhm. perle perle bleu def si bague bi ak boucle d'oreille su la neexee mun nga ko wër sa baat comme bu la neexee mën nga ko bàyyi mu gudd noonu mhm. d'accord bii deux pièces bi bii deux pièces euh, vingt et un la mhm. ba boucle d'oreille la ak sautoir. Mhm. Mhm. alors bii bii aussi trois or la. waaw bii ak bii ñoo xaw nuroo boo oh, seetloo mooy bu bleu bi. ah ok ak rose waaw moom tamit am nañ bracelet ak bague yoo xam dina ànd ak. dina mën a ànd ak moom. Mhm. alors Maty ku bëgg ci yi nga xam ne mooy nouveauté yi kawru yi comme ni nga waxee sautoir yi cravache d'or yi rappel gars yi numéro téléphone bi ak adresse bi ak yan possibilité aussi la ñu mën a am pour ñoom ñëpp ñu mën a acquérir seen or facilement. Eva nee naa ne léegi sunu clients yi war nañu xam ne adresse bi ak numéro bi. mais du tee ñu leen ko rek comme ça mu gën a leer seen bopp. nee naa leen boo bëggee si da ngeen di ñëw bii di Serigne Babacar si aussi Plaza Ren Socé. waaw ah, wala ngeen woote si 77 885 46 46 wala ñu woote si 78 461 25 25. wala ngeen woote si suñu fixe 33 861 25 25. Eva possibilité paiement yi moom bëri na comme ni ma leen koy waxee. kiiwu transfert yëpp am na bu leen neexee doo sax ñëw da ngeen di def seen transfert ñu defal leen facture envoyé leen ko par whatsapp bu leen neexee aussi mën ngeen ñëw di def dépôt ba mu mat ngeen jël wala nga am sa bijou boo xamante ne dafa yàgg wala motif bi neexu la nga ñëw ñu échanger la ko bu la neex te doo ci sonn ñu defal la ko si prix bu adorable incha allah Merci beaucoup Mathie. Merci Eva. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Donc voilà chers amis téléspectateurs sans plus jël sama belle du jour ñu dem ci salon de coiffure bi salaamaaleykum bonjour Evie Evelyne Evista Evista na nga def. ça va madame ça va yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm ça va bien je te présente Zeyna. bonsoir bonjour Zeyna. la belle du jour. ça va bien. waa Géejawaay. ça fii mooy ban Géejawaay. fii mooy Fit Mitch. Fit Mitch ok ànd ak liggéey bi comment ça se passe. ça va bien on macha allah. ah d' accord alors tey ban produit la Darling indi pour suñu belle du jour bi. Ah, bon tey Darling mèche la andi. andi mu wan ma paquet bi. Ah, mèche bi lañ andi. super magique bi. super magique bi. ok léegi lan nga ci bëgg a def race ay xees lañ koy defal daal ay genre fantaisie. Mhm. Euh, sous soleil genre dañuy lëtt mèche ginnaaw dégager kanam bi. Mhm. affaire yooyu def ay femme daal. def ay femme femme Evista ah. <laughs> d'accord amul benn problème je te laisse avec la belle du jour et on se retrouve tout à l'heure. d'accord merci à tout de suite. allez ciao. alors Evelyne suñu belle du jour pare na dama bëggoon nga jàkkaarloo mbokki téléspectateur nga expliquer ma leen ban façon coiffure nga ko réaliser ci li nga xamante ni mooy super magique bi. Euh, ça va Eva bon en fait maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. Euh, di leen wax juste sama coiffure bi ñu def dafa simple dañoo def ay euh, sous le soleil genre ak mèche darline bi. Mhm. surtout couleur caramel bi nii. ñu mhm. def ko ay tresses tout derrière rek simple def tuuti fantaisie. Mm. pour mu bañ a encombré en plus te xam nga ni euh, actuellement ñu ngi ci tàngaay bi pratiquement te mèche dafa nekk loo xamante ne dafa nekk au diapason noonu laa koy mm. tuddee. Mm. yow nga defal ko ko defal ko ci ay per bi ngay utiliser euh, mèche bi mën nga ma wax tuuti ci li nga xam ne mooy qualité bi noo ko sentiree. bon en fait mèche bi moom qualité bi moom normal na parce que déjà da nga koy lekk du dagg sa loxo yi. surtout des fois nga benn mèche sa loxo yi du dagg affaire mhm. yooyu noonu. du mhm. dagg te dina nooy. Mhm. da ngay gis ne boo koy xëcc sax vite fait day taaweeku. day taaweeku bokkut ak mèche yi lëj. non non. <laughs> en tout cas alors fi nga xamante ni mooy Evista Makeup nekk fii ci Guédiawaye lan ak lan ngeen fii def. bon fii nag ñu ngi fi def confection perruque surtout. Mhm. ñu ngi def customisation. Mhm. ñu ngi def pose sans mhm. col avec col. bon ñu ngi def bouclage. xam nga ñu ngi def maquillage. di def ay tresses comme nii ak mèche darling. bon di def ay rajouts aussi ñoo ngi def lépp daal pose ongle. Mm. lépp loo xam ne daal beauté la pour jigéen rek ñoo ngi koy def. yéen a ngi koy def donc joxeel adresse bi ak numéro téléphone bi. bon ñoo ngi nekk fii Fit Mit en face juste école Njarka Diagne. Mm-hmm. Euh, à côté de l'hôpital Dalal Jàmm. Mm-hmm. numéro bi mooy 78. 110 64 63. alors kan ngay sant ak kan ngay gërëm Evelyne. avant tout maa ngi remercier aussi équipe Evista Makeup mhm. parce que tey bu fekkoon man kese la liggéey bi je peux dire que du egsi fii nii yëpp ñoom ñoo tax malgré que am na ñoo xam ne sax ñoo ma mag mais <laughs> bàyyi ñu dara ci loolu noonu ci vois mhm. maa ngi remercier ñëpp ku leen jum aussi mhm. maa ngi remercier aussi waa association des euh, des coiffeuses de Golf Sud Marème Ndiaye comme ñoom Mame Sey aussi je peux dire que tey ba ma coordonné ak tonton ba sax grâce ak ñoom la. Mm-hmm. aussi ak sama papa ak sama yaay. Mm-hmm. tey ñoom ñoo ma dooleel ñoo ma encouragé. Mm-hmm. lu ma mën a men ak lu ma mën a am rek je peux dire que ñoom la. donc tu vois mënuma mënuma wax sax ci côté boobu noonu. tu vois maa ngi remercier ñëpp. non <laughs> tu vois waaw di remercier aussi. Euh, kenn ki nga xam ne dafa sori si man mm-hmm. jàpp bu baax sama salon sama pub mi Astou Mbaye mm-hmm. franchement borom Italie jàpp na si lépp mun ma lim maa ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne mm-hmm. ñoo ngi bëggee Vista Makeup borom déco yi aussi ñoom vision pub ñëpp naa remercier vraiment merci ñun tam ñu ngi remercier di la wax bon courage. <laughs> jàmbaar nga franchement ndax euh, au moins remercier nga ba pare. Ah. te xëccu ma la nax la rek donc ça va tout <laughs> va <laughs> Euh, en fait on a passé une agréable journée fi nga xamante ni mooy Evista Make-up nekk ci fit mi ci fii ci euh, Guédiawaye euh, franchement merci beaucoup à toi à toute ton équipe. Mm -hmm. et puis euh, sans plus tarder man damay jël sama belle du jour ñu dem ba ci Plaza on va continuer là-bas avec euh, bijouterie Serigne Babacar Sy ak Binta et Bino voilà bien arrivé aussi Plaza chez Binta Ebino Couture ñoo fekk si fii la belle noire sur d'ébène madame Thioune bonsoir. bonsoir Eva na nga def maa ngi fi. na mën naa la maa la raw naka sa semaine ça a été. oui ça a été. alhamdulilah nuyonte la gars yi. donc Eva ni ñu koy defee à chaque fois am contentement ak mbégte di leen dalalaat tey fii ci si Plaza Ebino pour wan leen tey maag sama belle du jour bi deux modèles lañ leen indil tey. alors les deux modèles bàyyi naa la ak Eva dañuy. comme ni ñu ko waxee woon la dernière fois gis nañ ne chaleur bi mi ngi insister. Mhm. donc euh, ni ma leen ko waxee woon rek ne leen collection tàngaay moom am na bu leen ko fi jooy. Mhm. xalaat nañ leen te yéen a tax ñuy liggéey donc tey ñu ni leen deux modèles du jour. Mhm. tey ñu utiliser soit paper. am na ñu koy wax soie paper am na ñu koy wax chantum euh, léger. d'accord donc euh, moom lañu indi tey def ko ci deux différentes robes. boo xoolee suñu rob yi donc c'est fermé nekk. mooy li ma leen di wax ne leen de day jouer toujours ci moderne bi aussi. Mhm. xam nañ ne euh, yére traditionnel lañ war a ñëw mais foog ñuy sóor ñuy dem au bureau. Mhm. et tout ñuy voyager et tout. Mhm. ak yeneen ak yeneen génn yoo xam ne euh, mën na nekk donc dem diine et tout donc modèle yi leen indil tey boo leen xoolee c'est comme des prêt-à-porter. Euh, mu nekk ay robe yoo xam ne. robe droite la boo leen xoolee nag euh, ci kanam dafa gàtt ci gannaaw gudd. ci gannaaw gudd euh, oversize la. donc euh, du nekk robe yoo xam ne day serré sa yaram. Mhm. donc day large xam mhm. tàngaay bi dafa metti mhm. nga nga jiital sa robe ci biir coton 100 pour cent mu neex ba bëgg de dee. comme ça ngelaw bi di la jaar fu ne. ngay respirer waaw ngay respirer. alors madame Tine fàttalil mbokki téléspectateur yi numéro téléphone bi ak adresse bi. waa Eva ku bëgg ci modèle bi ma sol maak sama belle du naa leen ko. ne leen modèle bii ma sol tissu bi ma sol am nañ ko ci différentes couleurs. Mhm. ci différents choix aussi ci tissu ci euh, ñaw bi ci couture bi mhm. da ngay ñëw si plaza au rez de waxoon naa leen Scat Urbam moo am foofu ñu ngi fay jaay ay tissu ci gannaaw mhm. miiru foire bi boo leen foofu di ngeen am large loo xam ne di am choix bu leen neex ci façon tissu donc euh, ngeen ñëw fii ci sur la corniche ouest ci si plaza war dem Scat Urbam ci gannaaw miiru foire bi boo leen ñëwee rek di ngeen tànn si plaza nag moo am prêt à porter mais mhm. gën a insister ne si plaza moo am prêt à porter mhm. scat urbam nag moom tissu rek laa am <laughs> waaw numéro bi donc numéro téléphone bi ku ñu bëgg a jot muy 33 829 05 35 loolu mooy fixe si plaza bi. Mhm. war ngeen woote ci fixe ci téléphone portable bi au 77 918 49 50 53 et Beno au bonheur des et eh benn au bonheur des dames madame Thioune am na habitude leen ko xam nga ni léegi nag dootu loo xam dañ leen koy présenté rawatina ci li nga xamante ne moom mooy collection tàngaay yu bees yi ak surtout nu bébé bu bees bi am aussi Ebino Home mi ngi fi n'est-ce pas. waaw Ebino Home Eva. Mhm. xam nga Binta li may wax jeeg di dañ koo jox bopp. Mhm, c'est normal nee naa leen ku ku ku ko ñeme rek yegsil boo leen yegsee rek Ebino Home ay yu doy fa xam naa naa leen ko présenté. nag incha allah li ñu koy waxee les dames de maison femme à l'attaque chez Binta et Bino toog jàkkaarloo ak sama bel du jour ñu waxtaan. voilà chers amis téléspectateurs bu ngeen gisee ma toog jàkkaarloo ak sama belle du jour nag ngeen xam ne franchement suñu émission mu ngi tàggatoo ñu ngi waaja naan wax bye bye n'est-ce alors Zeyna Zeyna lan mooy sa tur dëgg-dëgg. Seynabou Seynabou Ndiaye aywa sama doom baay. waaw ah. Ndiaye jaata Ndiaye sa maam yee défendre woon Sénégal. Ah, dégg <laughs> loolu laa waxoon mu ci voiture de. alors Seynabou quest fais dans la vie. formation restauration maa ngi sama première année. ah oui. d'accord en même temps coiffeuse. coiffeuse restauration coiffeuse passion la bu nekk ci yow. waaw ah. léegi après bu yàlla defee ba nga am ci ñaax ñëpp diplôme nooy def pour pratiquer les deux wala da ngay choisir bi nga xam ni moom ngay gën a sentir. waaw léegi pour l'instant ban nga gën a sentir. pour l'instant bon coiffeuse bi laa gën a lii nag. Mm-hmm. vraiment coiffure daf la neex. daf ma neex. tu aimes bien alors comme ni ñu la coiffé. waaw comme ni ñu la coiffé nii. Mm. avec dara la nii. <laughs> alors d'accord nag dañu nekk ci suñu Sénégal gi gis fi yoo xamante ne du ma ni sax guléet du ma ni lu bees la ndax yàgg na fii am mais franchement nekk na loo xamante ni jamono ji dafa jéggi dayoo mooy li nga xamante ni mooy insécurité bi doomu aadama yi di dund ba tax na tey fitu kenn dalatul. kenn ñemeetul sax yónni sa doom ci boutique bi kenn ñemeetul génn ci sa buntu kër yow loolu noo ko gisee. vraiment Eva comme ni nga ko waxee rek surtout kenn dalatul instant bi jamono bi yaa ngi tiit sax génn. Mhm. dara dal la. Mhm. moo tax lu ñu mën a mën a gën a gaawee ut solution rek. Mhm. pour pour teel see sauver parce que instant bi mooy loolu. mais pour yow par exemple lan nga yaakaar ni mooy cause bi lan moo waral tey rey yu bëri yi lan moo ko waral. Ah, man de lu si li ma gis man vraiment peut-être mal édu mal éducation bu pare tamit ak fréquentation yi des fois xam nga tamit da nga dugg di ànd fréquentation ñoon muñ la dugal mm-hmm. waaw en fait influence bi nga bëgg a wax que nit ñi dañ leen influencé mm-hmm. ah léegi pour yow lan mooy solution bi waaw ñoom ñu toog xoolaat seen bopp xam ne lii jëmul jëmul kanam mm-hmm. vraiment jàppale ñoom tamit xam ne ay nit lañ comme nit ñuy rey nit ndaxte metti na trop nga tiim bakkan ak bakkan na mu fooree nga rey ko ah effectivement en tout cas metti na trop comme ni ko bu waxee nga tiim sa moroomu doomu aadama amuloo dara loo gis ci moom lu dul jël bakkanam mais dama naan ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def buñ koy def man pour man dafa am leneen lu ñuy àndal ànduñu ak seen sago ndax ka doomu aadama bu nekk boo àndeek sa sago dëgg dëgg dëgg am na yoo xam ne doo ko def ñu ngi dund nag jamono ji insécurité totale ci suñu Sénégal ñu ngi dund loo xamante ni metti na ndey kenn bàyyi wóolootul kenn mag ak ndaw xale la ci bokk yam képp ku mu mënti doon bañ naka ba bëccëg sax léegi da ngay ragal génn rawatina guddi te gis nañu léegi quand même que macha allah yàlla may nañu ay force de l'ordre yoo xamante ne ñi ci ñi gën a xarañ ci àdduna bi gëm naa ne ci la ñu bokk te actuellement nii nii ñu entamé nii dañ leen di ñaan rek ngir yàlla ngeen continuer ko ñuy dundee noonu tous les jours au Sénégal à vie mais ñuy lancé waat aussi un dernier message ci ki nga xamante ni c'est le gouvernement ñoom ñoo mën a jàppale jeunes yi ndax Sénégal c'est un pays jeune donc autorité yi gestu leen ñi nga xam ni ñoom ñooy xale yi ndax xale yi ñoom ñooy doon magi ëllëg xale yi ñoom ñooy tey ji réew mi ëllëg nañu ñaax ñi nga xam ne ñooy parents yi nañu ñaanal seen jaboot ji na ni julli di ñaanal seen njaboot xale yi aussi delloo ci seen xel ci seen borom bu ko defee yàlla mën ñu sàmm suturaal ñu ba suñu Sénégal mën a ñu mën a dund en fait ci naataange alors sëy na bu li nga xamante ni moom mooy coiffure bi la euh, Evelyne defaral noo ko sentir nga téyel ma paquet bi wanal ma ko mbokki téléspectateurs yi vraiment waa daal li dañoo parce que coiffure bi dafa rafet macha mm-hmm. allah Mm. très nice daal. saful saful mèche bi diisul mèche vraiment. nickel daal. ah non paquet mm-hmm. bi. donc voilà chers amis téléspectateurs bi ma téye sama loxo nag dafa ñëwaat encore ndax bii. super la super magique bi yàgg naa leen koy indil ñu indil leen ko avec des belles du jour ñu defal leen ci ay tresses su rafet bu dul ay tresses di ay randa bu dul ay randa di ay mèches xeetu coiffure bu ne gëm naa ni gis ngeen ñu defaral leen ko ci li nga xamante ni moom mooy super magique by Darling super magique bii nag bii couleur noir bi laa téye sama loxo gis ngeen mais bu ngeen gisee bi nga xam ne moom la ñu defaral suñu belle di jour couleur caramel la am na rouge am na gris am na bleu am na xeetu couleur bu nekk ci li nga xamante ne mooy supermagique bi je pense que couleur bi ça va dépendre que de vous comme j'ai l'habitude de vous le dire les et les couleurs ça se pas ça dépend que de la personne te fépp fu ñu jaay mèche d'Arline rek bu ngeen demee di ngeen ko fa jënd ngeen jënd seen super magique yóbbu seen coiffeuse mu xool ban création la leen ciy defaral na xam ngeen tàngaay bi bëgguñu dara loo xam ne daf ñuy déranger te mèche ko defee mën ko jël takk ko wala ngeen def ko seen ay tresses yoo xam ne du leen gêner te su boobaa din seen bopp dina mën a laal et ce sera toujours un plaisir ngeen di utiliser li nga xam ne mooy super magique bi alors li nga xamante ni mooy robe bi la waa Ebeno Couture solal madame Thioune noo ko sentir. dafa lenn ni lii robe tàngaay la. Mhm. woyof na macha allah. Mhm. te neex na si yaram daal. e en plus gis nga ni mu grande daal waaw dafa grande daf la transformé ci saa si. tubaabe <laughs> <laughs> tubaabe macha allah. macha allah donc voilà gis ngeen euh, madame Thioune Sànq mu ngi leen koy wax nee na leen chez Ebeno tàngaay dafa annoncé wu fi nga xam ne mooy au Sénégal donc fii. mu nee naa leen bu tàngaay jotee yaram soxlawul dara bëggul dara lu koy laal lu dul lu oyof rek boo nga demee ba nga xam ne mënoo futteeku mënoo def dara daw si li nga ñëw fii chez Ebeno di nga fi fekk ay coton 100 pour cent façon modèle bu nekk xeetu tissu bu nekk rek am na fi boo ñëwee di nga fi fekk sa bonheur ndax di nga fi fekk madame Thioune mu conseiller la comme ni mu abee habitude di ko wax Ebeno au bonheur des dames alors li nga xamante ni moom mooy les belle bijoux en or yi la waa bijouterie Serigne Babacar si takkal noo ko sentir nice ñoom ñoo xam naa duñ jaay lu ñaaw. Mhm. vraiment parce que senti naa ne rafet na tàkk na. tàkk na am na éclat. gis nga macha allah te diisul ah lam bi sentiroon ni diis na. Mm, mm, mm. donc voilà nee leen xeetu marque or bu leen jaaxal bu ne bijou en or bu ngeen bëgg rek bu ngeen ñëwee fii aussi Plaza au rez-de-chaussée ngeen dem ci bijouterie Serigne Babacar Sy di ngeen fa fekk la belle Mati wala Diarra wala Ousmane wala pourquoi pas maman ñu conseiller leen. jox leen ay possibilités en plus yoo xamante ni mën na leen permettre ngeen acquérir seen or en plus avec des modes de paiement yoo xam ne vraiment c'est très très abordable alors koy sant koy gërëm. maa ngi sant samay waajur. Mhm. waa di sant samay mag vraiment maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñu ñuy seetaan maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant surtout samay waajur nag. parce que mhm. waajur dafa fort. effectivement ak samay mag ñoom Madina Marème bàyyi ma kenn daal Merci beaucoup. Ah, donc voilà chers amis téléspectateurs euh, suñu émission nag comme ni ma ko annoncé léegi ci début bi jeex na man damay delluwaat foofu nga xam ne mooy Géejawaay di remercier bu baax waa salon Evista Makeup nekk foofu ci Géejawaay avec toute son équipe euh, di remercier bu baax Evelyne ci coiffure bu yanj bi nga xam defal na ko suñu belle du jour di remercier aussi ñi nga xamante ni moom mooy suñu sponsor leader ñooñu ñooy les mèches Darling te les mèches Darling yàgg naa leen koy wax nee leen à chaque fois ñoom day xool li nga xamante ni moom la ñu soxla ñun jigéen Sénégal ñun surtout jigéen ñu ñuul surtout jigéen ñi nga xamante ni seen doole jotu seen ginnaaw seen loxo jotu seen poche mu xol seen produit yu rafet génneel ñu ko tegal ñu ko sur le marché à des prix vraiment très très très abordables donc jaaraama daal la ñun jigéen ñi bokk amuñu seen fay sérieusement di remercier aussi ki nga xamante ni mooy waa bijouterie Serigne Babacar Sy di remercier Binta Ebino Couture madame Thioune moom miy solo à chaque fois aussi suñu belle di jour ay tenues yoo xam ne amul fenn macha allah. Euh, voilà Zeyna ñun nag fii dañ fi am benn tradition boo xamante ni suñu belle du jour bu ñëw rek dañ lay jagleel cadeau c'est de la part de toute l'équipe de Darling. merci beaucoup Eva vraiment c'est gentil. yaay boobu waa Darling bu baax. merci beaucoup ñun aussi ñu ngi lay gërëm donc voilà euh, suñu émission nag jeex na mais euh, dama lay remercier bu baax Seynabou on a passé une agréable journée avec toi foofu ci Guédiawaye di dellu foofu di remercier waa salon Evista di leen jox rendez-vous la semaine prochaine avec une autre belle du jour et d'ici là portez-vous bien mais bien avant damay remercier aussi ñi nga xamante ne mooy les hommes de l'ombre ñi may à chaque fois du ma leen lim xam nañ seen bopp gros